nekk ci dëkk bi dañ koo mën a booleeg wax ñun ñu nekk ci tuus yi rek li ñuy jot da ngay gëmm say bët ne non c'est pas possible dëkk bi waroon na mel ne fanal waroon na développer bu yàgg mais nan nga mën a concevoir ay nit denc ay milliards c'est des milliards tëdd ci ñaara leen intéressé jigéen ak sàngara Hmm? li ma la wax du dañ jigéen ak sàngara hmm. xaw yi sutura jigéen eh, jigéen góor dañ ko bind ngi jigéen dëgg la wala du dëgg mais nga am ci ngoor te nga teral ko parce que yàlla dafa fonk jigéen ba tuddee ko saaro alxuraan hmm. mais yow noo gën a xawee sutura jigéen boo ko defalee junni boo ko mayee un million weer nga ko ca mbedd ma wala nga yóbbu ko ci ay TikTok yóbbu ko ci influenceurs yi defe nga ni lii di xew ci réseau yi nii jàmm la. xam naa seen jamono ba xale yi bëri woon nañ lu ñuy dem Dubaay de. waxuma jamono mais mais appartement yi moo gën a takkar naa si Dubaay est-ce que xam nga ni bépp bépp immeuble bu ñu doon coow bitim réew. Mhm. léegi mu ngi taxaw biir Sénégal. ki def immeuble euh, huit étages neuf étages dix def ci ascenseur. Mhm. kooku fayum courant dana ko jooy. Mhm. fu koy jële te lépp a ngi fi am na yoo xamante ni dañ ko tëj kenn du yow ko da ngay ñëw wax ak soxna si bu soxna si amul ngorom wala mu bàyyi xel diineem da nga koy jël duwal ko foofu defal ko defal ko appartement def ko jabar du mos am jëkkër soo fa bëggee jaar jaaree fu jëfandikoo ko weekend bi ngeen jël seen lépp dugg ci seen jet privé astaghfirullah dugg ci seen avion euh, première classe daanu ji Dubaay. Mm-hmm. oto bi gën a cher bu soxna si génne mu ngi gaare ci bunt bi. soxna si du gis jant parce que buggul buggul ni ñu koy tuddee ci poom lakk lakk du gis jant gis nga imam doguma la du gis jant may ma rek tuuti du gis jant dix-huit heures la yeewu waxuma soxna si nag topp waxuma soxna si waxuma mami dix-huit heures lay damay jox misaal rek damay jox misaal rek dix-huit heures la ñuy yeewu dix-huit heures la ñuy def seen yëpp dix-huit heures ba vingt heures ñu ngi sangu diwu Euh, façon feeru xaw ma ngeen koy tudde yooyu. maquillé wu poudre yooyu maquillé wu jël mbaxana mi daal di sol muy greffage bi. Mhm. ah pare nag fan la ci biir géej gi. Hmm? léegi romb nañu boîte yi ngay gis nii. Ah, fan ci géej gi foofu. ci biir géej gi ay bateau yoo xamante ne bateau luxe. ay croisière. <laughs> waaye looloo xew. maa la wax lii looloo xew ñoom noose wuñ ci biir ay ñoom. Eh, almadi gii ngay gis almadi gii cambar cambar jaa fa nekk. mbir géej gi de kenn du la romb doon financé. Ah, ñu leen doon financé ñii fi jaaroon yore suñuy milliards mën nañ li ci tuddoon ñu du jeex. Ah, xam naa de xale ñun ragaluñ cee tudd benn nit. xale yi yaboon nañ Dubaay de. romb nañ foofu. Dubaay kenn nga dem ko à 3 millions. Ah. wala ñu defal la benn paquet bi. léegi 5 eh, millions paquet cinq millions ñoom pour ñoom moo remplacé 5000 francs wala 10 000. day mbay. millions. moo cinq mille francs bi ñu la doon may jox ko 5 rek la ñuy wax. paquet paquet paquet 10 million bi moo remplacé. bi 000 billet 10 bi ñu lay jox. yow defe nga ne am na ci jigéen ñoo xamante ni boo fa demee yow di yëkkati 10 mille francs di leen jox. naan leen ndékkee ko te ndekki dañuy bës bouton woote ñu indi leen liñ bëgg yépp ñu moste tuuti génn jaxase réew mi dellu siwaat. bu guddee ñu toj nit dafa am de. non dama la wax lu leer. mais mais amul benn weekend bu ñuy toogee fii weekend yi ñu lay tàggu yëpp dañ naan la séminaire wala dugg na fi génn fi demoo ñu séminaire séminaire u géej gi. Eh problème yi yëpp ci biir bateau yi lañ koy regle mhm. looloo nekkoon ci réew mi de. loolu la xeex. koo ci dem ay poosam wala biir otoom la muy dege dafa fay. Mhm. la muy dege ne ci la muy dege ne ci ay millions. Mhm. da ngay tudd yàlla subhaanahu wa taala mais loolu loolu mu bu bu buñ koy dindi di ko xeex ñi koy dindi buñ leen mënee rey danañ leen rey. kon imaam yow d'accord nga tey Macky dellusiwaat fii. man Macky dellu si ñu non mu dellu si ñu àtte mu dellu si ñu àtte ko. <laughs> xoolal kooku demande sociale la comme ni ko mam yi di faral di waxee dafa nekk loo xamante ni du man du yow. Mhm. mais Gilbert Sambou xam nga nan la dee. amul ay mbokk. ok kam daan àndal keneen ki. DJ DJ boobu nag DJ Badji xam nga nu mu dee. mais quatre-vingts personnes de euh, quarante xaw ma quatre-vingts personnes yi fi dee. d'ailleurs ay classe de guerre am sax suba dinañ def conférence de presse ngir. Euh, xam nga nu ñu dee beneen bi ci des tey menace dafa am ci gouvernement bii ñu nekk ñun. menace menace. xam nga menace ñan la. Mm-hmm. mooy détenu yi menace la ci ñun. ex détenu yi de. ex détenu yi menace la ci gouvernement bi bu ngeen ko yëgee ak bu ngeen ko yëgul. Hmm. comment ça mais comment ça. ñoom foog nga am noo def ak ñoom parce que li ñu def seen bopp mënuñu tëdd kaso. ba pare génn. ñu naan leen de gauche et de droite dem leen ngeen bay wala ngeen nangam dugg na fi duñ ko dégg. Hmm. am na ci ñoo xamante ni mën nañ nangu dem bay boo leen joxee jiw boo leen financé ñu dem bay mais am na ñu ko mënoon xamuñu ko. Hmm. te dañ la xeexal ba egg si fii. léegi kon ñoom lan la ñuy xaar ci état bi. li ñuy xaar ci état bi mooy état bi wutal leen loo xamante ni danañ ca mën a jàppandiku di ca tafa di ca tabax seen sutura. Mm-hmm. ba ëllëg kenn du leen ree. te loolu dafa jaadu du caagee ne. Mm-hmm. tabaski jot nga yëkkati cent mille francs deux cent mille francs seegu cinq cent mille jox leen non du caagee ne korite jot wala màggal jot nga may leen paas. Mm-hmm. mbir mi du foofu. ni ngay jàngalee ex détenu yi ni nga leen di jàngale ñuy dem di nappi jën eh, safirla di di nga leen ni nga leen di maye jën da nga leen di jàngale nan la ñuy demee nappi jën jox leen matériel qu'il faut ñu dem nappi jën mën ko ñëw jariñoo comme ñëpp mhm. te état amul yoon bu mu dul jaar bu mu mënta régler loolu mm-hmm. Aminata Mbengue Ndiaye safirla ki dëkk Diourbel ay dem ay dem lu mu fi wax démb ak der bi. ak der bi. ah, ah mooy zéro yi zéro yi nee na ah, Aïda Mbodj nee na am na ay contrat yoo xamante ne nii dañuy euh, annoncé 2 millions. signé 200 000. jox leen 200 000 dañ leen war a jox 2 millions. jox leen 200 a jox 2 millions. waaw jox leen 200 000. te ci kayit waa ñee ñooy signé 2 millions yi. te duñ ko xam 2 millions lay doon. waaw waaye 200 000 ngeen am benn zéro bi dañ ko doon furax léegi li si des ñu jël def seen poche. dafa des <laughs> dañuy woo mami groupe 10 personnes dañ naan la mami dama indi neuf personnes ak yow muy diis waaw ah. neuf personnes yooyu. du ñu xam xam nga lu ñuy signé. allahu la ñuy signé. Hmm? ah oui. xamuñu luy signature waaw jànguñu. Mm-hmm. wala boo ni leen signé ah man kat mënumaa signé kat nu ñuy ñu rëdd rek. nga def étoile comme ni ñu ko daan defee ñun bi ñu nekkee xale signal nga def étoile. Mm-hmm. signal nga def allahuma au lieu ñu jox la 2 millions yi. ñu jox la 200000 1 yi ñu def ko seen poche 1 ñu def ko seen poche. man la ñuy demee ci géej gi nag dafa def lu jaar. man dafa am lu may eh, préciser fii je pense ne n'est pas la première fois <laughs> c'est foog naa la énième fois ma di ko wax mais comme jamono jooju noonu jub jubal jubbante amul woon kenn mënu ko woon jubbanti. toog naa fii alerté ne hey guys nañu bàyyi caaxaan ak DER bi nga xamante ni dañuy jël xaalis bi di ko jox ay politiciens chaque benn politicien dem ñu jox ko 10 millions muy war ay militants di ko leen woo di leen jox ay 250 000 250 000. un jour quelqu'un m'appelle pour me dire est-ce que soxla woo DER am na diw bu demee weekend bi gars dañ koy jox chaque weekend mën na génne deux 10 millions ci. maa la pour mu jox la. gars yi na ngeen mhm. man fi ma toll ni état bi soxlawuma ñu di ma financer teg naa samay pieds yi ba pare xam la laa soxla ñu soxla samay service ma ñëw defal leen ko te ñu di ko nekk di ko caaxaane di ko jox ñeneen ñu nga xamante ni mérité wuñu ko ci étape boobu laa toll et ça me permettrait man sama bopp au lieu ñoom ñuy jël 10 millions yooyu di ko kasar kasaree ma mën a lijjanti ñeneen ñu nga xamante ni dinaa leen recruter ñu liggéeyandoo ensemble pour le développement du Sénégal je di dit même pratique di continuer gars yi na ma yokk dof nga mais dama jàpp ne jub jubal jubanti bii loolu la ñu war a nag gën a lijjanti mooy xaalis bu nga xamante ni. jël nañ ko sànni ko ci ndox mi. Ah. amalul benn yoon njëriñ Sénégal te ña ko fa sànni. ñooñu nag dafa war a saa ñooñu caabi dafa leen war a féetee ginnaaw ñu tëj ko ba pare sànni euh, caabi ji si géej gi ñu sànni. parce que ay demande yu bari ñu ngi foofu maanaam ñi ko yittewoo lan ko joxul daal. waaw ñi ko yittewoo joxuñu leen ko. mais mais mais yow nga ne nan joxe. 2 millions dañuy woo 10 personnes. li ay mami di expliquer nii lu clair la. Mhm. dañ naan mami dama ne la dañ naan mami yaay ay dizaine bi dama indi neuf personnes pour ñu financer leen neuf yi ñëw xamuñu luy signé dama ne la xamuñu luy signe mhm. xam nga ne un mami boo ñëwee ne ko signer papier bi dana xool papier bi. dana lire contrat bi à la fin. Mhm. contrat bi dana ko xool <laughs> mais contrat bu ci gisee deux millions. mais gis nga jox ko deux cent mille. Mhm. mais du ko du ko du ko du ko du ko signé. mais ki mu koy jox du ko xam ana jaaykatu gerte yi fi nekkoon doon yore pañe yi di dem. Mhm. te ñi ñi ñuy financé. na en avance am na yoo xamante ne. non dëgg la de <laughs> non Imaam dëgg la de. en avance en Imaam ñi ñuy financé Imaam. ñi nga xam ne dañoo jëloon deux cent mille kon ñoo koy fay ba mu jeex. ndax ñoom ñoo signé ñooñu ñoo ñooñu nag la police di topp ni moo tax nga dégg ay dëmbooj ni police am nañ. liggéey bu parce que ñooñu foog ñu ñëw ak seen pièce d'identité mais ñi jote ñëw ñi jote ñëw dañu wax ni dañ leen dañ leen a woo joxuñu leen deux millions deux cent mille lañ leen jox benn zéro ba lañ luubal léegi nag yow yow da ngay dugg far force wala ki la woowoon day dugg parce que yaa ko signé man li tax aw ma woon financement DER ndek c'est ça c'est ça da woon ma bi